25 mai 2022 bokk na ci li ñuy fàttaliku ñetti at ci ginnaaw ci atum 2019 ab manifestation bu amoon euh, fii ci ndakaaru ay nit ñu bëri rawatina ay soxna génn euh, di naqarlu euh, fitna yi ñu leen di teg mi ngi amee woon ca place de la nation ñu gën koo xamee ci place de l'obélisque loolu la ñuy fàttaliku ànd ceeg Ibou Diouf ñu dellu si waat ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2019 réalisatrice franco-sénégalaise bi di Mati Diop jël grand prix festival bu Cannes ak long métrage am bi mu duppee Atlantique ci loolu nag mu liggéey ci lu aju ci émigration clandestine maanaam ndaw yi nga xamante ne dañuy bàyyeekoo Afrique di def kenn kem kàttan ngir mën a tukki donte fiñ ñu koy jaarale yenn saay du lew ngir dem Europe. ñaar fukki fan juróom ci weeru mai atum 2020 mu yemoo ku faatub George Floyd foofee ca États-Unis ay manifesté yu bëri toppoon ci ñu doon ñaawlu rek racisme wala violence policière yi ñuy nemeeku ci agglomération yi mel ni Minneapolis Saint Paul ak itam lu dëkk yu bëri ci biir États-Unis bés yi ci topp mu amoon yeneen manifeste nag ci àdduna wërngël këpp ñu doon ñaawlu rek ci li ni mel bokkoon na ci ñu yëngu ci wàllu politique ci wàllu cosaan ak aada ba ci sportif yi. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2016 nguuru Sénégal génne lu tollu ci ñaar fukki milliards ak ñaar ci suñu xaalis ngir dàmpe ko groupe Sénégal bi nga xamante ne moo doon yëngu ci lëpp lu aju ci visa biométrique. ci loolee nag gannaaw ab contrat délivrance boo xamante ne dañ ko dàkkaloon fondateur société boobee sax di ancien ministre ivoirien de l'intégration africaine di Adama Bitoko doon sàkku ci réewu Sénégal ñu dàmpe ko lu tollu ci fukki milliards ak juróom-ñeent ci suñu xaalis. tey nag yemook ñaar fukki fan ci weeru mai dañuy taxaw ci beneen xew-xew bu amoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2019 ñu doon agression et violence faite aux femme ñu ne loolee dafa doy muy ab slogan boo xamante ne ay manifestants yu bëri ñoo ko jëloon bés boobe yama woon ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai foofee ca place de l'obélisque bu ndakaaru ñi ci ëpp nag nekkoon ay soxna participants yi nag doon ñaawlu rek li nga xamante ne ñoo ngi koy yëkkati ci mettital di ko teg ci soxna yi Gabrielle Kane di activiste féministe maanaam ko xamante ne dafay xeex ngir ñu sàmmoo lépp lu aju ci wàllu àq ak yelef bi ñu wàllook soxna yi moom nag moo ñëwaat ci boobu la fitna rawatina ñaaw teef bi ñu namee fële ca Pikine ak faatub ki nga xamante ne mooy Kiné Gaye ci ay anam yu ñaaw lool. société bi dañu war a xoolaat li nga xamante ne mooy place u jigéen ci biir euh, ki negeen mi nga xamante ne moom la ñu fàtt fële ca ca ca Pikine dafa nekk loo xamante ne c'est le reflet de notre société maanaam lépp loo xamante ne xeetu violence la dañu xamante ne violence yi nga xamante ne dañ koy def jigéen ñi du jàmbur mooy def jigéen ñi dans la plupart des cas les violences qui sont faites aux femmes elles sont intrafamiliales c'est dans le cercle Euh, bi nga xamante ne mooy ku jigéen ki ñi ko xam rek ñoo ko teg violence du ay jàmbur donc euh, socialement ñu xoolaat suñuy biir parce que à chaque fois dañu nekk société boo xamante ni lu lajj rek ñu teg ko ci kaw jigéen ñi lu dëng rek ñu teg ko ci kaw jigéen ñi luy exigence rek ñu teg ko ci kaw jigéen ñi parce que bu ñu demee ba góor ne jigéen moo ko reyloo beneen jigéen comme ni ñuy wax euh, l'émotion est nègre Sénégal day fonctionner par émotion bu événement amee ñëpp lu ko ñëpp wax ci et bu jàllee ñu jàll ci leneen bu ñu fàttali ko Binta Camara il y a pas longtemps yeneen jigéen ñoo xamante ni def leen def nañ leen fi euh, loo xamante ni lu ñuy ñaawlu la ñii ñu rey leen ñii ñu rey leen sax ci seen biir néegu sëy waxuñu ci donc on passe de l'émotion à rien du tout à un manque total d'action donc tant qu'il n'y pas d'action publique tant qu'il n'y a pas de volonté gouvernementale et étatique boo xamante ne dañuy jël violence faite aux femmes def ko un sujet une priorité nationale defe naa ne duñ ci génn euh, donc marché yi dinañu yàgg marché parce que c'est vrai que de temps en temps ñuy dénoncer marché yi dina régler lu bëri mais lu gën ëpp ci sensibilisation bi lañ koy amee merci beaucoup euh, Ibou Diouf euh, Chérif euh, gisoon nañ ko at moomu nag dafa am lu xewoon lu xam ne moo yéemoon askan wi yëpp comme ni ñu faatee Khady Gaye ni mu jaaxalee Sénégal muy Binta Camara fale ca Tambacounda te ki ko faat mu miinoon ko loolu ba taxoon sax soxna yi génnaat ànd ak ñeneen ngir sàkku ñu gën a dëgëral daan yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy faat jigéen ñi wala di leen jéem a sàkku naam am na ab loi bu ñu fi voté woon buy criminaliser viol ak pédophilie Euh, tout à fait xëy na mobile crime bi moo wuute mais daanaka modus operandi bi muy ko defoon Binta Camara ñaawteef ga ak euh, sëñ Xaasim mii ñooy am parce que ñin ko def jege nañ leen. Mhm. muy ay jigéen yoo xamante ne vraiment abusé nañ ci seen confiance ci seen kóolute. Mhm. ba tey ñu moom seen bakkan maintenant bi ci gën a récente kon mooy Fatou Gueye. Euh, wax nga ko Kiné Gueye Fatou muy loo xamante ni également gis nga révélation yoo xamante ni presque moom mooy reconstitution des faits vie violence faite aux femmes la yi nga xamante ni jigéen ñi ngi koy mënee fii ci Sénégal ngir ci viol bi criminalisé nañ ko mais saa yoo xëyee gis aussi li nga xamante ni kon ay soxna yoo xamante ni ñu ngi leen di sàkku moo taxoon bi ci est-ce que c'était li nga xamante ni kon moom mooy criminalisé est-ce que gënu noonu rek durcir li nga xamante ni loi bi la teel a àtte bureau yi su ko defee kon mu nekk exemple mais bu fekkente ni instruction la ñu yóbbu leen kaso dañu dem ba sax fàtte ko l' observateur am na benn rapport bu mu wax ni même ay yi nga xamante ni kon. plus de 400 yi ñu nemmeeku ci ab bu gàtt sax. voilà donc muy loo xamante ni quand lu yéeme la ci réew mi nga xamante ni kon mooy réewum Sénégal donc il faut continuer ci li nga xamante ni mooy plaidoyer bi xeex bi mais également comme ni ko waxee di teg na fitna ki nga xamante ne mooy Kiné Gaye mais teg na fitna sax soxnaam loolu si forme de violence morale la parce que wax naa leen fi bërki ba mu taxawee ne sama soxnaam ma teg pression mi ngi koy jeter en pâture je pense que bi nga xamante il faut même accompagner son épouse sur le plan psychosocial ba la nga xamante leneen li muy indi ay jafe-jafe yoo xam ci wàllu famille donc il faut nit ñi di assumer seen acte bañ am lâcheté sécurité bi ne mooy boo la dara dalee rek nga ne diw moom moo ko def te na la woon tey tegal sa loxo ci gaz bi comme ni ñu ko daan waxee ba ni gone doo ko def mhm. donc il faut aussi yenn kon nit ñi nga xamante ñoo koy def ñu bàyyi xel bu baax a baax li ñu def te xam ne jigéen quand même ko war a gën a ormal mhm. moo gën quand ñu koy teg yenn métit yi mm, mm, mm, euh, El Hadji te dañu naan euh, jigéen la moom moo tax mu def lu ni mel gis nañ benn journal boo xamante ni sax nee na am na ci benn soxna bu mu njëkkee woon mais xaj na kooku yàllaa ko suturaal mhm. euh, lu ci bëri dañuy gis ni moo tax ñu leen di songu waaw wax dëgg yàlla li lii xew nii moom dafa dafa yéeme sa que bu ñu dellusee ci événement bi nga xam ni moom moo xewoon. Mhm. muy Fatou Binta Camara ca Tambacounda ñun ñëpp. la naqari woon ba nga xam ni euh, bi jigéen ñi jóg ak yenn organisation euh, des défenses de droits de l'homme yi euh, tayatuñu ko woon ndax dafa ëppoon doy na la ñu waxoon donc jógewu te te li ci gën a yéeme soxna naata mooy mm-hmm. maanaam liñ naan dëmm dëmm la ba pare jaale la mm-hmm. loolu la ñuy mm-hmm. mooy ku la jege moo lay faat ba pare ñëw di jooy comme waa ji rayoon Binta. ah Alioune Badara Fall. Ah, ah, c'est ça n'est-ce pas ñëw ñëw ñëw di samp baas ya di tegale sees di nax ñuy jooy fekk yow yaa def njombe mhm. kii tamit ba mu defee la muy def ba pare ñëwaat na. di daanu xaasim ñëwaat na ca yëf ya ñëw di jooy naan sama sama collègue bi rey nañ ko agressé nañ ko donc c'est extraordinaire ce qui se passe te li ci bari ci jigéen lay dem Binta Camara jigéen. Euh, Fatou Kiné. jigéen Seynabou Ka Diallo fële ca Ndar Seynabou jigéen la. xale bi nga xam ne barki dem moom la ñu violé rey ko fii ci Tëngéej jigéen la donc lu ci bari ci jigéen lay dal te violence yooyu rek la ñu gis parce que moom moo fës mais li jigéen di dund ci société bi ak ci biir néegu sëyam kenn mënu ko wax parce que am na violence morale am na violence physique am na violence yu nga xamante ni économique la mm. ci liggéeyukaay yi lu nekk jigéen mi ngi koy daj donc loolu yëpp war nañ ko xoolaat pour warmaal jigéen parce que jigéen mooy suñu yaay jigéen ñoom ñooy suñu ay suñu ay sœur mais également yàlla suñu borom dafa fonk jigéen ba jagleel ko saar ci biir alxuraan. Mhm, donc voilà mi ngi noonu kon kon war nañu vraiment delluwaat ci valeur yi nga xam ni moom lañ doon wax ñu ne jigéen dañ koy yërëm euh, jigéen dañu koy wormaal jigéen dañ koy suturaal ndax suñu yaay ji ñu sukk jur donc euh, vraiment li xew ni moom metti na trop nañu delloosiwaat xel yi nañu yaraat njaboot gi mhm. parce que tout dépend aussi de l'éducation de base tey Xaasim ñi ngi woo yaayam mhm. mais yaayam rayul deful dara xëy na mais il faut que ñu enquête ko ci doomam. Mhm. ni mu mel. ba ba mën a sadique comme ça. Mhm. ni damaa jam benn yoon bi ma jamee benn yoon bu yuuxu li ci des dama doon jam rek xamatuma fa ma doon jam. Mhm, donc c'est extraordinaire yàlla na yàlla. amiin delloosiwaat dal. nit ñi nañu delluwaat. ci éducation de base. parce que nit bu fekkee ni ragalatoo. rusatoo. jombato mhm. yaag mala yéene yam mhm, jërëjëf société bi moom waaw euh, allez-y waay non mi lâcheté tamit parce que euh, moi je pense que euh, nit ñi dañuy faral di songu jigéen ñi parce que la plupart du temps elles sont sans défense dañoo faible parce que soo Fatmata Maktar Ndiaye. tu te rappelles euh, la militante de Pastef la euh, Kër Massar. te ay meurtre la yoo xamee ni dafa dafa violent degré violence bi foo ko natt weesu na ko mais da ngay wax ni lii naka la mën a nekkee c'est vrai que ñi ngi fi faat ay góor ci réew mi mais soo nattee proportion yi je pense que ni mu wutee bari dëkk bi ni ñuy def jigéen yi euh, ci wàllu violence dafa mhm. ëpp te je me demande est-ce que ministère bi nga xam ne moom lañ leen jagleel est-ce que xeex bi ci war ñi ngi koy def parce que tamit souvent dangay dégg ay euh, tragédie yu mel ni yu deme nii mais di nga dégg ay association yu nekk à côté di génn di kaas mais ministère li nga xamee ni moom moo moom moo yor jigéen ñi fii ci Sénégal je pense que rarement ngay dégg mu mm. yëkkati baat wax ci violence yi nga xamee ni quand même ngi dal ñu ngi koy teg jigéen ñi waaw soxna naata à chaque fois bu genre crime yi amee dañuy euh, ñëwaat ci li ñuy wax valeur Malick wax na ko léegi donc euh, mu poser ay ay ay ay questionnement yu bëri bokk na ci li nga xamante ne mooy confiance parce que wax nga nañ ko li xewoon Tamba ak di xew Pikine daanaka benn la parce que ku si nekk sa ñaale moom mool moo la moo la trahir en mhm. quelque sorte ray la Euh, façon bu ñaaw bi loolu di indiwaat li nga xamante ne également mooy doylu mhm. parce que nit ñi da am lii mais sa niveau de vie da da lay euh, dugal foo xamante ne rek pour nga résister dafay tentation yi dafay bëri mhm. ba tax na ñi nga xam ne ñoo doon yar démb ak bërk démb foo ñu mhm. xoolaat créneau yi nga xam ne ñoom lañ doon jaar parce que gis nañ ko même ci curricula yi euh, programme scolaire li ñun chance bi ñu amoon di def ay ay CVAV par exemple di def morale. Euh, di def éducation civique ñu jékki saa yi génn ko ci programme bi. te loolu dafa amoon valeur ndax bokkoon na ci ñi nga xamante mhm. ñoo doon tabax génération yi. absolument merci bu gis nañu xale itam ñu ngi jàng mhm. loolu merci beaucoup. Euh, léegi léegi dañuy uh-huh. déglu les victimes d' euh, sexuelle. bañ di nës nësal. Mm. gis nga France Damien Abel. Mm-hmm. ministre ba ña ko na dafa siifoon. Mm-hmm. coow ko toog mm, merci ñu jàll ak Darmanin aussi euh, ñu jàll ci leneen muy xibaar yi ñu ànd ci ak euh, Cheikh Tidiane Diaw